système éducatif bi enseignement supérieur la ñuy passer à des tri est-ce que ñëpp ñoo war a dem université parce que boo jëlee un pays comme l'Allemagne du ñëpp ñuy dugg université il y a des métiers qui sont là yoo xam ne demandé wul à ce que la personne am benn étude bu fort bi mais à l'avenir mu mun ko euh, servir pour mu mun a am euh, une vie meilleure aussi. oui certes oui c'est clair loolu c'est ah. évident ça coule de source mais xam nga. Euh, dafa am luy soutenir loolu lii tax nit nga motiver ko stimuler ko mu war a dem ne boo ok je m'arrête à tel niveau je vais faire ça xam nga loolu lu koy def à euh, xam nga luy def loolu uh-huh. mais bu njëkk CAP moo amoon kilifa yi uh-huh. certificat lañ daan am <laughs> ay autorités yu bari ci jamono uh-huh. après indépendance certificat lañ daan am mais bari xam-xam parce que jàng ba baax na bënn na base bi am na doole ñu jàng alxuraan ba pare door a jàng la ca quand je pense à notre grand-père Lamine Koura Gueye Lamine Gueye Bakar Waali ñemaa bopp boobu nga xam ne dafa jàng alxuraan ba baax pare jàng xam-xam waaye xam nga nasaraan buggul ku ni mel mhm. nasaraan ëffal ko jaxase ko Senghor bi nga xam ne moom Lamine Bakar Waly moo dalal Senghor moo ko indi valoriser ko lamin mi daan maye bourse yi ñoom président Abdoulaye Wade ak ñi ci des ñëpp wante nasaraan comme xam na ne Lamine dafa am lu mu gëm dafa am lu muy bañ du ko arrangé mu jaxase ko moom jël Mamadou Dia tag ko ci Senghor Mamadou ja ak Senghor def face ak Lamine Gueye dem nañu ba li ñu suñu kilifa bi doon fàttali keroog Babacar Fall Gradec. Mhm. ñu ko nuyu en passant. Mhm. jamono yi mu ñu ñettali xam ñu fekkuñu loolu. mu ñu wax comment livre ñuy wax comment boobu naka Sénégal yëpp uti. l'histoire politique du Sénégal. livre très intéressant. dem ba kilifa diine yi fi newoon sunu maam Khalifa Ababacar sunu maam El Hadj Fallou kilifa yu baax ak kilifa diine nasaraan ak Senghor. monter plan ba nga xam ni dañoo dem jaxase carte gi daal di dal ci kaw ay taalibe maam Khalifa Ababacar dal ci kaw ay taalibe yenn kilifa yi la xew kilifa yi daal di mel féete ci Senghor. Mhm. lii histoire bi féete ci Senghor après Lamine nekk seul. Mhm. alors que moom moo nekkoon ci dëgg. et il était incompris. pour wax rek ne njàpp l'histoire a toujours été dévoyée. faussée et biaisée. toll nañ nag jamono boo xam ni tele ci poche am na tey jii nii seen TV ba xëyoon ne ma eh bi aw eh bëggatuñ say mbir. dama leen wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na yàlla yokk leen daf leen di xéwal keneen noonu keneen noonu keneen noonu kasaalika day jël ña téléphone ak bopp la toog sa la waxtaan ak àdduna foofu la àdduna bi toll àdduna nag bu foofu yàllaa dikk mhm. mu ne sàkku leen xam-xam ngeen xam yoon bi fi mu nekk ngeen defar seen réew Sénégal foofu la toll mhm. Juste rappeler aux internautes qui nous suivent un peu partout sur nos pages Facebook ak euh, si YouTube bi euh, je suis avec euh, Pa Assane Seck le doyen Pa Assane ñu amal waxtaan bu solo par rapport ak tolluwaayum réewum Sénégal lal mm. neen wàllum homosexualité waxtaan un peu un petit peu si wàllum histoire parce que mm. voilà c'est quelqu'un de très dense machallah euh, Pa Assane euh, ñu wax maintenant si politique wax euh, par rapport ak sujet yi on va parler de l'amnistie Khalifa Ababacar Sall ak yi nga xam ne mooy Wade mm-hmm. Ousmane Sonko qui est toujours en attente par rapport ak li nga xam ne mooy liberté am euh, placement sous. Euh, passeport diplomatique am euh, non contrôle judiciaire am. l' affaire mais c' est pas encore le cas en tout cas. non c' est pas encore le cas l' affaire Kilifeu aussi aussi ak. passeport Kilifeu libéré non. libéré il a été libéré. waay euh, yëguma woon euh, une très bonne nouvelle. une très bonne nouvelle Kilifeu donc on va démarrer par euh, Kilifeu. <laughs> finalement il a été justice a été fait pour Kilifeu Paasane. waaw nañu nañu nañu sant yàlla. ci mhm. ci moom. et tout à l'heure j'ai appris que le député Sall la bi bokkoon ci problème passeport diplomatique il a été alpagué. Euh, il aurait été alpagué en pleine circulation fa lañ ko jàppee ci en pleine circulation. Fatou vous êtes méchant. Ah, ah mais c'est le loolu mooy terme alkaati kilifa <laughs> ah, kilifa. son uh-huh. cas je pense que c'est presque comme un coup fourré. Uh-huh. bien monté et après ficelé après mu nekk victime. Uh-huh. mais comme on dit dëgg mooy mujj. la libéré Thier. moo libéré kilifa. mais son image a été écornée euh, loolu saa yi àdduna kuy dox. di nga fa xasalu. Mhm. baa fa xasaloo da jóg dem seen. Mhm. c'est absolument rien du tout kilifa doit hyper fier de lui. Ah. et sortir dox doxam continuer son combat. Mhm. sa waay laa fexeel nga dugg ni ruuba yàlla génne la parce que ruuba moom dugg na. mais aw génn nga sant borom bi daal doxal sa dox. on, on l'encourage et puis euh, na téye affaire bi. Mhm. il faut se battre. tu as comme l'impression que voilà je vais pas dire le président de la République Macky mais au Sénégal dañoo nekk ci euh, chasse aux activistes parce que gis nga Guy Marius Sagna mhm. il a été aussi euh, affecté à Kédougou ñu bëri jàpp ne aussi <laughs> affectation boobu c'est juste pour euh, voilà sori ko li nga xam ne ginnaaw Groenland <laughs> Groenland laa la wax wala nga yóbbu ko mont bi gën a élevé ci àdduna bi. endurance moom am na ko macha allah. le mont Everest de l'Himalaya xulil 8882 mètres. Uh-huh. boo yóbbu woon kii Maris ba foofu. du ko teree wàccaat ñëw Sénégal gi wax li mu bëgg a wax waaye kii kii neex a bëgg. <coughs> boo nekkee ci dëgg. ginnaaw ful la mënti yóbbu daa liggéey. encore que. surtout à Kédougou. encore que <laughs> encore que c'est quelqu'un qui peut être libre de dire j'y vais pas dàq leen ma. il peut être libre de da wala ngeen xool ni ngeen di def. Ah, après lan ban solution ngeen am. dàq moom rétention de salaire. dàq moom façon coono bu dee teg ngeen ko lu leen dalay Sonko moom dootuñ ko répété waat. alors donc aujourd'hui euh, sur le cas de tous ces activistes là on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Ah. dafa am loo xam ni président Macky Sall ak ñuy àndal ñoom faw ñu nangu ko ni ñu leen nangulee woon ñoom seen possibilité d'opposant mhm. faw ñu nangu ne. daa am ña nga xam ni ils sont pas d'accord ils sont pas d'accord am na fu ñu ko teg nañu waxtaan nañu échanger nañu accepter nit ñi le droit de gàddu seen ay pancarte de marche et cetera marche bi ñu doon bañ di ko tere amul keroog tranquillement ñoom xanaa xamul ni bu ñu bàyyi nit ñi marche tranquillement dara du xew les messages passent et y a pas de boucan mm-hmm. mais heure bu ñu nee noo du jàll mooy def communication projet bi et c'est là ou j'ai un problème avec eux, ces là en me mais kilifa yi ñoom xanaa ñoom après quelque part dafay mel ni sax dañoo bëgg boucan boobu. Mhm. parce que moment bi boucan boobu di am leneen a nga xew ah. ngi ci leneen. <laughs> loo xam ni peut-être après lañ ciy revenir. détourner les Sénégalais de l'essentiel exactement mhm. exactement. Mhm. li activistes kenn mënu leen tere. yow loxo ci poche téléphone ci poche. sa ay ñëppay wax ñëppay wax. mais on voit aussi euh, beaucoup de dérapages ci téléphone ci poche yi a Assane pas Assane bien vrai que c'est euh, on, on voit dérapage ci téléphone yi oui d'accord uh <laughs> -huh. on voit dérapage dans l'état du Sénégal à un niveau incommensurable bu yéeme c'est-à-dire dérapage yoo xam ni moo ñu indil fi ñu moo ñu yóbbu. il y a beaucoup de scandales même ça mu toll nii mun nañu wax ne ëttu liggéeykaay comme euh, poste moom fu mu toll nii.